Ngoye maa ngi lay nuyu. lay fay. sant yàlla bu baax. bonne fête <laughs> aw ma ku ma koy dundal sa <laughs> amoon naa ko waaye amatuma ko. ah amatoo ko. <laughs> Ah, mhm. ah, métti na daal. Hmm. métti na métti bi nga xam ne mënuñu ko wax fu mu commencé ak fu mu terminé hmm. man moom mën naa jëlee exemple sama bopp man parce que jigéen la euh, métti da ngay nekk ak nit ba dara bu dul dara séntuwoo ci moom dara tey mu commencé am tuuti rek commencé di la woon ginnaaw te ba mu méttee woon xam nga tàmm nañ boo waxee ñu ne ba mu méttee woon da ngay ne jigéen ñoo tàmm di wax ne su ba mu méttee woon man la woon man su ma ne ba mu méttee woon man la woon parce que ma ñu fekk ko yorul dara ma koy muñal am fa ñetti doom yu góor may lay béton di uti matt di ñëw duro ci kumiko yi ñu may fay ñoo di defal sama bopp ci kër gi su ma lekkee xamuñu bu ma naanee xamuñu samay doom muñ soloo xamuñu xaaruma ko ci dara parce que dama ne comme yor na ñaari loxo ma yor ñaari loxo war naa koo mën a bañ xaar ci dara samay doom dama leen yóbbu suñu kër boobu ñu ngi en di liggéey bëgg sama bëgg la mu neex doomam rek ne indi ma samay samay sët ma fi naa leen yor waaw mu ngi mu ngi fa mu ngi fii Dakar gii waaw ne comme dañuy tabax sama papa indi leen xale laa ñu la dund laa ñu la ordonnance mu soo xam sa doom bu feebar ñaata lañ fay yow kooku dafa dafa lañ wàññi na la say charge kon nag yow bay demee dem dem ba mu neex ko di takki jabar sa saamu wax ma billaay wallaay saamu wax ma ba mu ne suba lay tàkk samedi bi ci guddi dimanche si gi damay dema tey damay tàkk jabar foofu mu ne ma kaas ma man ko amul problème parce que comme sama yaay day wujjee def ma ko muy kaa waaw ragalu ma ko de man sama yaay day wujjee sama maam bu góor juróomi jabar la am kooku war waruma mën a ragal wujjee te ma juddoo ci yaroo ci ba war ma koo mën a ragal ah waaw ndaw si ñëw na sama ndaw sama ginnaaw la ñëwee parce que man moo may 100000 may jënd bagage comme dama bëgg ay affaire commerce ak yooyu di jënd bagage yi dem dimanche bi mu tàkk lundi man dem suñu kër moom ma ma gungee poste Thiaroye ma jëli bis lundi boobu ma ne ko dema balaa ngay guddee comme jamono neexul mu ne ma damay bàyyi ba bis bi départ ma ne ko déedéet ba forcé ko mu dem ba mu demoon ba mu dem noonu daa dem ba yëmbal jëli jabaram ñoo wàcce ko sama néeg sama kaw waaw nga foog ne du xam. ak léegi ah, na tamit lu ne nga cax ma dem ba ma eggee tag ci guddi gi fajar gi ma xëy woo ko mu wax man coupé ma waat ko mu ma kii ko woo wala moo ma woo mu waat ko mu damaa jàpp ma toog sama fit bi nangul di rëf-rëfi dañuy def maama ni dañuy def dëgg la dañuy def waaye di nga fa fekk nga xam ne mën na la génn ci situation bi nga nekk mm-hmm. maa toog la ba musul def ànd ak jarbaatam ñi dem ci maaman mu ne ndaw si borom bagage yi waaw mu ne ma ma ne ko mu ne ma ki nga àndal nii la la ma ne ko sama jarbaatu jëkkër foo leen dëkk ma expliqué ko mu ne kii ci kër gi borom bagage yi kan la ma ne ko man la maa ngi ay bagage pour jaay mu ne ma déedéet des na kii ñëw nii da nga génn am ko dugg tànk jàmm taxu koo jóg mu ne ko ah ma ne ko ah ma ko baax na wala affaire caaxaan laa ko téye de waaye looloo ma génnee man tey ci kër gi. waaw maaman bi expliqué wu ma parce que man damaa ñëw comme ni dëgg la ba xam ndax dëgg la waaw daf maa cax bàyyi ma ci biir waaye jëloo ma ko daal lu lu sincère daal man affaire bi foog naa ay affaire yu yomb yooyu la woon ma quitté guddi jógee fa ma dëkk ñëw dellu si dakaar gii ñëw pour ñëw xool ndax dëgg la wala du dëgg ba ma ñëwee ndaw si sama néeg laa ko fekk sama sama néeg laa ko fekk sama kolal parce que man yor naa caabi buntu kër gi ba may dem laa fekk mu changé caabi buntu kër ma ne ko aw ma sa caabi mu ne ma jëlal benn ma ne ko jox ma ko bu yëkkati jox ma ba ma ñëwee ubbi fekk waxoon naa ko sëram sëram na ma ñemewul def loolu bàyyi déglu say xarit ma ne ko man sama xarit du ma tasloo sama sëy sama xarit du ma xulooloo sama jëkkër ka def 11 ans mariage kooku gisuma leneen la ko fay jëlee xanaa lu am fayda ma fay génn waaye lu ñàkk fayda du ma fa jëlee ba ma ñëwee ubbi mu fëgg mu ubbi mu làkk ma si joolaa ne ma yow la kan ma ne ko man la diw mun na ma ah ma ne ko ma na ma dangaa guddee ma ne ko waa toog na une heure de temps balaa moo ubbi buntu bi ba mu bunt bi ndaw si ne pëlëj taxaw ma ne ko ah ma teg ndànk da wóoy ji sëram boobu fi may waxee yow sëram boobu ba léegi tànkam dugul ci biir kër ci buntu gi fa taxaw jéggiwul pour dugg ci biir pour ñëw xool taxaw xool ndaw si munoo bii gàcc xam ba fan laa koy waxee ma koy dundee moom ci biir kër gi mun ma kii sa moroom la ma ne ko waaye na ñëw bi rafet man bu ma nekkoon ab dof tamit bu ñëwee na ko kii la jiitu ci kër gi même bu dee wérul tamit moo la jiitu ci kër gi man sama gët laa bëgg a jox ma soxla ma dara deux jours moom moom sama deux jours ku nekk na nga gérer sa deux jours ñiy dem ndaw si commencé di déconné ñiy waxtaan waxtaan jékki-jékkee téye boppam man nit boo téye sa bopp rek ma téye sama bopp parce que xamoo lu te waxoo ma du ma la laaj bu ñee laaj ma ne ko xaw ma ci dara mu ne waa baax na nii ba problème yi gën di yokku su ayee sama néeg mu toog néeg jabaram ba 23 wala 0 heure soog a dugg sama néeg bu duggee sama néeg day tegle ba kontaan ñëw tëdd ma ne ko jaru ko boo futtee ko woon sax du laal sama courant néeg dagg na ko jël sama lal waa sama lal télé rajo gaz jox ko jabaram bu nawet jotee nii parce que comme kër gi tabax bi parewul devant bi ndox bi day dugg ci néeg bi damay jël sama éponge wéer toog ba bët duma añee ca kër ga du ma fa def dara fanaan ba fanaan laa fa am bu ma ñëwee sama ñaari doom yaa ngi ci kër gi si ñoom la ñuy lekkee ndekki añ rek xale yi bu ñu feebaree xamul ku ci daalam dagg xamul ku ci yërëb xotteeku xamul man bañkat laa mos a doon ba fa ma dëkk ba fa demoon tey galaate ma dañ la wax may kan man tey ñàkkuma samay mbokk ñàkkuñu waaye man maa bëgg a ñafeel sama bopp xama sama bopp àdduna ba moo ma indi lii ba tribunal lañ mujjee ñu ngi nii dossier yaa ngi tribunal parce que ma dem ba joxatuma dépense joxatuma dara maa xëy dem ñafe ñoo defar sama bopp waaw waaw nga dama divorce nga bëgg ma ne ko ma problème la nga bëgg dama la ci fekk si bam neex say dagan tas dagan na waaye na rafet parce que fa nga ne maam ñetti doom yu góor mënoo am li ko ëpp mënatuma am ñu ëpp ñoo ñooñu samay nawle lañ parce que suba ñoo may indil jabar kon man bëgg naa sama digganteeg moom na rafet ma ne leen kër gi moom xëccoowu ma kër sama pap la mu yor ci kër rek macha allah na jël këram samay doom jël dañ fa am na ko samay doom jël waaw moo ma fa jëlee ba ñoon yàlla tey jii jigéen ñi sëkk nañ sëkk waaye sëkk bi li ci ëpp ci góor ñi la góor boo takkee ñaar na rafet bu jengee rek affaire bi jéng bu fexee na nga jub nekk ci digg bi ku ci def na ko suduroo ne ko xee fa nga teg sa tànkut foofu tegi ko waaw waaye na rafet te jub bu mu déng man ma fu nekk nii contourné naa mbirum sëy man fu mu nekk bu waxtu waxu sëy dama leen la merci baax na su nekk nii sama xol moo neexatul bokk 40 ans la am 40 la am le 4 5 1980 laa judd. 40 ans mën na sëy ba léegi. na sëy ba léegi waaye man maa ko defatu sama bopp bokk fu mu nekk nii damaa jóge suur ñu daan sama doole 15 ans ba 15 ans laay wàcc ndax lan di daw coow di daw lu bëri mu ngi tribunal tribunal ba Tëngéej fa la nekk. sama dernier moo sëy yi tasi de ñaanalu ma ko kenn nañ muñ. te toog jàppale surtout sama genre nga xas nañ ba am njaboot ci kër gi nañ sëy ndax seeni doom nañ sëy ngir seeni doom waaw jërëjëf